di am na xar ak mm-hmm. ndax tey Sénégal yëpp ñoo yeewoo na xar mm-hmm. muy sunu papa Thione euh, am lu mu liggéey ci Sénégal mm-hmm. am lu mu def ci culture donc tey mu dëdduñu ñu koy ñu koy mettitlu di ko jaale waa àdduna di ko jaale njabootam rawatina suma rak Wally Ballago di ko jaale artiste yëpp ndax tey Euh, jaajëf Pape Diouf euh, Pape Cissé may wax ak yow xam naa euh, artiste bu toll ni yow bu ñàkkee ku toll ni Thione Seck dina am lu lu manqué lool lool lool ci moom waaye ban remarque nga gis ci coon Seck si digganteem ak yeneen artistes yi rawatina yow. waaw xam nga Thione yàlla dafa am lu mu ko mayoon. Mhm. muy créativité dafa mënoon créer. Mhm. te mën naa ni Thione. Mhm. Charlton Trésor la woon de la musique mhm. ci ay textam ci ay parolam ci communication am donc ci fànn bu ne mhm. ak aussi modestem donc ñun ñëpp nag mu marqué ñu ndax coon daf ñu daan bégal daf ñu daan bercé bercé suñu yaay yi suñu papa yi donc tey ku mel noonu mu bokk ci ñi nga xam ne dañ fi fondement muy la musique mbalax musique ñoom ñu ko révolutionné fondement ko tey mooy enterrement bi bi ñu nekkee ci armeel yi. Mhm. enterrement bu mel noonu mën naa ni suma ko gis lu dul desewu ndongoloo. Mhm. donc loolu euh, leneen la donc ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljana ci barke Seydina Mohamed mhm. Serigne Touba mi nga xamante ni mooy wasilaam teeru ko. d' accord Pape Diouf euh, ñu ngi wax amin euh, wante Thione Seck tamono ji mu ngi nekkoon ci production bu bees doon ci duo ak jeune artistes yu baree bari. yow nga toll ci digg bi dépassé jeunes yi yeggagoo ci ñoom coon sekk wala boog sax ndax dangeen leen a def ay kilifa. Mhm. alors ex pare woon nga pour bokk ci wala yaa ngi woon ci loolu. bien sûr bien sûr pare woon naa pour bokk ci donc projet la woon. boo mhm. xamante ni artistes yéene mooy suñu yéene ci loolu mm-hmm. incha allahu rabbi dinañ ko mottali incha allahu rabbi mm-hmm. mais comme que nii ñi ngi ci dëj mm-hmm. ñi ngi ci tiis ak naqar li ñuy def rek mooy li mu gën a soxla mooy ñu gannaaw buñ ko jaalee Sénégal jaale ko sunu bopp jaale ko njabootam jaale ko ay frère am li mu gën a soxla rek fi mu nekk ni mooy ñu ñaanal ko ay xul wallahu ahad ngir yàlla jéggal ko ay baakaaram te xare ko aljana amiin ok jaajëf Pape Diouf jërëjëf Pape jërëjëf merci merci Baol Medias Pape Diouf jaajëf Baye Ndiaye mi nekk tamit ah, ci jéem ak jottale kook ñoom.